alhamdulilah bila ngi leen di sant ginnaaw bi ñu santee yàlla di ci sant di déglu si li ma amee ba sallallahu alayhi wa sallam ñu gërëm ñaari way jur yi muy ndey ak baay tey ñu am mbégte ak kontaante di leen dalalaat fii seen émission bu kër jigéen li ma leen waxoon rek ci béyaat bu kër jigéen dañ si taamu jigéen ñi jàmbaar jigéen ñoo xam ne liggéey am cër fu ñu dëkk tey am ci benn muy kat ndey tuuti loolu Ndeye Couty Lo muy présidente jeune femme républicaine Ndeye Couty Lo maa ngi lay nuyu di la dellu ziar di la dalal Léegi TV. TV salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum président de la République son excellence président Macky Sall maa ngi leen di nuyu bu baax yéen ñëpp ah di am mbégte ak kontaan rek ñëw wuyu si leen tey seen invitation di émission bi kër jigéen. Ne tuddandoo ginnaaw şey bu la nuyoo ba pare nga am seen mbooloo bu takku macha allah xam naa ne nii sa ëpp na si ginnaaw mais ñu am jot tey ñu ñëw fekk si fii si plateau bi ma leen di nuyu di leen jaajëfal waaw ndey tuuti gis nga sa kër nga àndal tey bu ci jógee ma lay dalal sama laaj bi nekk man mooy benn si mouvement jeune kañ nga ko créé ak kañ la fal président loolu laa am waaw di kontaan ci question bi rek am initiative ñi ko créé le 20 janvier 2018 kon mën naa ni waaw mouvement bi ay weer la am léegi ginnaaw bi ngeen ko organisé ba pare léegi yow la fal président kañ lañ la fal président yow ak kan xëccoo la woon wala yow yaa ñëw rek ñu fal sa bopp président wala ñoom ñoo la taamu def la président waaw alhamdulilahi rabbil alamin nag nga xamante ni ah wax dëgg fa yàlla initiative bi yàlla moo dogal mu génnee ci man bi mu génnee ci man am samay moroom yoo xamante ne ñoom tamit amoon nañ initiative bi mais bañ ma ne ay ci dañ leen woote réunion laa dem woote la jigéen yaay suñu njiit mais bañ may fal ma nekk njiit nag au moins man day doon maa fa nekkoon ñu fan ma comme président. kan mooy Ndeye Diouf yow man nga war a fàttali président mouvement jeune Dame. président républicain. jeune Dame jeune Dame républicain damaa bëgg mu nekk ba am. waaye xam nga républicain daf ñoo neex. waaw suñu affaire la. wala Ndeye Tuuti Lo de moom mooy présidente jeune Dame républicaine di responsable APR dëkk Parcelles Assainies nag yàgg fa nag yàgg fa milité depuis ma amee 14 ans laa commencé di politique. man bi may politique ba ma carte d'identité sama carte d'identité scolaire laa doon jël di ko politique di dem su ma doon def moom laa doon yore comme arme comme arme bu ma mën xamante ne mën nañ koo lire kii nii si mooy adresse am parce que boobu auma 18 ans 14 ans laa amoon boobu maa ngi jàng amaguma doon benn diplôme ma commencé toog politique bi di jàng di dem topp samay man topp samay nijaay topp samay responsable ñoom Baye Ndiaye ñoom Mbacke ñoom Badou Amadou Ba ñoom ñëpp topp seen ginnaaw. di liggéey nag nekk xale bu tuuti nangoo nag toppoon seen ginnaaw ba yàlla dogal na xale yi màgg tey kooku mooy Ndeye Pouty Lo nekk responsable cent mille communes di présidente section féminine bu Parcelles Assainies depuis 2012 ba léegi di présidente jeune dame républicaine bi nga xamante ni ñun ñoo ko créé initié ko créé ko teg ko nag mu nekk lu officiel nag macha allah yàlla def bu la léegi jeune mouvement jeune dame républicain ñaata ñu jógee seen mbooloo nan la toog. waaw mouvement bi nag euh, macha allah biñ ko créé ci le 20 janvier bii passé ak léegi mhm. ëpp nañ vingt mille membres. vingt mille membres ëpp nañ ko fi mu ne nii parce que dañoo bari parce que dafa nekk mouvement boo xamante ni yemul ci département bi mhm. au niveau national ba yemul ci benn département ci quarante cinq département yi lañu nekk fépp foo dem ci Sénégal. am nañ fa ay jeunes femmes. ñamul national la. 45 départements yi ci Sénégal gépp. am nañ fa ay membres Sénégal nekkul international. non su ma génnee Sénégal Italie am nañ ay membres. Mm-hmm. doonte bare foofu mooy pays bi njëkk a am ay membres. ci biir jeune daal ñu ngi ci suñu groupe WhatsApp mais nag yàggaguñu yàggaguñu mais massification bi moom mi ngi taw moo efficace ba toolu foofu noonu ci sept mois yi nga créé nii. mën nga dinga jël sa mbooloo boo la nekk débuté ci ay natt mouvement républicain dafa am ay organisation yoo xamante ne ay natt la wala da ngeen dimbalante seen biir wala mouvement simple nii rek la am mouvement bi du mouvement simple du mouvement simple parce que li tax du mouvement simple moo ne mouvement politique la xam nga ñun dañuy ay ndaw di ay politiciens di liggéey président de la République fay am ñu ñu ñu jël kon yaakaar naa ñu def social ndax ku wax Marième Faye wax social dama dama ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi def ay action sociale ci calebasse de l' émergence des jeunes dames mu nekk benn format boo xamante ne ba léegi rek ñun ñoo ko initié toogandoo ko ne chaque quinzaine dañu dem benn commune comme dañu bari ci commune yi mënuñu ñëw ci benn commune di tegg benn nit mais suñu ñëwee ci commune dañuy teg 10 paan bu ñu tegee 10 paan paan bu ne am na groupe bu fay natt ñoom ñooñu ñëpp buñ nattee ba pan yi fees dell denrée ba fees dell 10 paan yooyu denrée yu baax lañ lay jox 10 paan yooyu rek bu ñu paree ak xottu paan bi bees biñ la koy defal loolu ci weer bi dix lañu joxe par natt dix par natt fu ñu ñëwoon tey natta si la tey sa commune yow mhm. dix paan lañ lay jox ne la joxo sa dix jeunes dames dix paan yooyu noonu mhm. di ñu koy def deux fois ci mois bi loolu mooy quatre cent cinquante mille yi nga xamante ñu ngi koy natt suñu biir di ko dimbalante genre social parce que ku wax Marème fay Sall ne social mais amuñu ay qu'est-ce que keesaat parce que tamit waaw parce que jeune dame dañuy dem ak seeni propre moyen mu nek ay dames yu engagées vraiment ay dames yu sociales ño xamanteni kenn ku nek li nga yéné sa bop mom nga yéné sa morom luñu am def ci mhm. waaw xam nga lolou mënul ñak ci ànd léeg-léeg ngay dajalante wéccet ndax tay ji alamaan sax amul ci suñu calabash bi mais buñu ñu bam dess wéccet dañuy jël def nee suñu kees solidarité jox ko suñu waa bureau ba léegi ndax mën nga xëy benn jour ku mel ni ministre Anta Sarr Diacko am lum la defal jàppale la boobaa da ngay jël ca kees goo ko dolli mën a jox say jeune dame une formation sociale boobu la ñuy liggéey ngeen am yéen koy defal seen du kees bu ñu denc dañuy ñëw natt laa la wax. waaw léegi su ma déggee si say wax. Mhm. léegi yéen su fekkee amu leen kees boo xamante ne dangeen koy denc. Mhm.

ñu am kees nag vraiment loo xamante ni depuis suñu lancement bi bañ paree weccet boobu ñi defoon ba léegi man nga fa tëdd ñu bloqué ko foofu kon am nañ kees léegi madame Ndeye Tuuti loo kees boobu xam nga nit ku nekk ci li nga bokk mhm. mën nga see gis sa bopp mhm. kees boobu man laa bëgg a xam mhm. bëgg nga faram fàccee ba ko naka lay demee ba xam ku ci feebar wala ku ci am loo xamante ni soxla nga pour bëgg a def commerce mënoo demal sa bopp mu ñëw Ndeye Tuuti Lo lebal ko waa kees googu solidarité lañ ci defagum ak social. Hmm. mais defaguñ ci ay financement parce que jeune dame recevoir agul financement comme que recevoir aguñu financement nag mënaguñoo financer benn ndey aram mu dem voyager mais nag ñaanuñu ci yàlla nit feebar na nag. Hmm. ñu jël ko ci dem seeti ko ci nit def na ci bataay yi dara ñu jël ko ci dem feebar nit yàlla na yéex faatule na fi ñu jël ko ci dem jaale ko ci déplacé nañ fi jógee région ak région ñu jël ci parti def nañ ci suñuy organisation def nañ ci suñu ay. programme def nañ suñu ay échape def nañ ci loo xamante ni ñoo ngi koy soxla ñu ngi ko ciy jël di ko ci def. ban genre financement ngeen am. defaguñu financement sociale lañ defagum. muy calebasse mais su ma déggee ci say wax. Mhm. yéen li ma ma delluwaat sama waxaat da ngeen a mhm. bootu ci ginnaaw Marème première dame première mhm. dame Marème Faye Sall. léegi Marème Faye ngi leen di financer. ci li ngeen wax wala. loxo mi ngi ñëw wala ñëwul. waa Marème nag moom xam nga moom ñëpp la fi nekkal. yow mi sax Marème nekkal na la fi. fondation servir waaw ndax boo nee servir la Sénégal rek ñëpp la ñuy servir. ah déet ñëpp a ci gis seen bopp nag. Ah. servir la Sénégal rek. Ah. déet ñëpp ci gis seen bopp parce que li tax ma wax la lool. li tax ma wax la lool tey. tey jii li fi Marème Faye Sall defar ci ay jàkka kenn mënu koo lim. li fi Marème fay Sall joxe ci ay logement ndax fii bay na ay cité yoo xam moo ko fi andi de. Hmm. problème inondation yi kenn déggatu ko. est-ce que man de bokk ma ci. kon xam nga ne amul bi bukki buy njuur ñii toog defe naa kenn bokk ci mm. amu ci kenn ne bokk nga ci kon amul bii bukki buy njuur Marème fay Sall hôpitaux yi bu fay ñëw ñun ñi nga xam ñu ci terrain politique duñ ko say mais yéen du ngeen toog deux jours la ñu ne Marème Faye ñëwoon na fii buy dem fenn sa ñun duñ ko yëg day dem fa def fa àddina teraangaam jàll dem xam ngeen lool ci moom def fa àddina teraangaam jàll dem hôpital bi fu duggee lii par lii lii bu nekk jaaltal dem lijjantiwu sax malaat bi fii la dëkk fii la jógee parce que social bi jàkk jàppale borom këram. waaw kon xanaa hôpital yi ñuy waxtaan yi ci télé bi nga xam muy jàkka yi aussi du ci hôpital yi kese de. boole ko ma ne la muy jàkka yi déedéet dama ne Marème fay Sall. li mu def ci hôpitaux yi fii. li mu def ci hôpitaux yi kenn mënu koo lim benn li mu def ci jàkka yi kenn mënu ko lim ñi mu génnee Sénégal gii yóbbu leen extérieur faji leen kenn mënu koo lim. maanaam moom rek moom laa première daal moom bilan wam kase kase falaat na Macky Sall moom rek rek falaat na Macky Sall moom kase rek fal na Macky Sall Amina kooku ñun li tax ñu jël ko tuddee ko suñu bopp ñun ñun ñoo ko xam du ni dafa leblanteeg ñun de du question dafa seet beneen benn ndey tutloo wala benn ki deflante déedéet danoo du lool de du affaire audience de noo xam nga lama lay wax li tax avant ay audience yow li tax ñu tuddee ko mouvement bi may la ay actes yi muy def ci réew mi ay action sociale yi muy def ci réew mi di bàyyi jirim ji nday birim yi nekkeen ñëpp ci réew mi Marème Faye inondation ba mu yegsee ba léegi kenn déggatu ko xuus jàll fépp fu am problème Marème fay fatt na ko ay kër tabax na fi joxe mënoon na toog ne sama borom kër moom la ñu fal moom mooy chef de l'État mais première dame bu mel ni moom mosuñu ko am ba Sénégal Sénégal ba léegi ci loolu nag ci lañ ko tuddee suñu bopp loolu lañ ko tuddee suñu bopp de ba ñu tegee suñu mouvement avant ñuy teg suñu mouvement yàgg nañ di gisante yàgg nañ di gisante biñ ko tegeeg léegi nag ñi ngi gisante mais li ñu amagul rek lenn kese la mooy toog ak moom ci turu mouvement bi loolu moom amagun ko waaye nag ñi ngi ci de te it am nañ ci yaakaar yaakaari bu baax te xam nañ incha allah léegi mu def ko. waaw mhm. waaw ah déet. defal ndànk bul wax loolu nag. damay wax. déet bul wax loolu ma eggali. Mhm, eggali ko Wolof Njaay nee na. Mhm. loxoy Kajoor day weesal. Mhm. seen mouvement bi. boo leen ci gisul seen bopp. gisoo leen ci Marème Faye sax. ko ci jiite gis nañ ko ci bu baax sax. Marème bi ñuy lancé suñu mouvement bi dañoo jàppale. gis nañ ko ci bu baax sax. Marème Faye rek. est-ce yéen a ngi wax ak seen morom yoo nga xamante ni. amuñu ku leen jàppale. comme yéen ñii ni ngeen ko amee. ñoom am na ñoo xam dañuy demal seen bopp. amuñu mhm. sax ku leen finance mhm. yéen macha allah yàlla jagleel na leen loolu mhm. est-ce que yéen a ngi dem tamit di seeti ñooñu di leen wut di leen dimbali ñu ngi koy def nag bu baax ñun bàyyi na foo xamante ne ñun jeune dame suñuy tànk dugg na fa te président am na ñum takkal ndooma tànk seen tànk dugg fa bàyyi na foo xamante ne nii ñaar mu jeune dame wala paanu denrée jeune dame dugg na fa te am na ñu ñu takkal ba tànk ci réew mi te joteegun fa kon nañ ñi ngi dem dem ngi moom li mu metti metti terrain bi dañ koo ñemee ñu ngi ci jeune dame depuis bañ falee mouvement ba léegi tooguñu taxawuñu yendaluñ fanaan ñun suñu koñ sax amatuñ lu fa xew ndax dañuy woo partout te dañuy dem fu ne nu gën a fu ne la ñuy dem fu ne la ñuy dem ñoo ngi nii toog ak seen i moroom ak ñi ñëwut fu ne la ñuy dem kon nag ñooñee ngeen ne ndax am na ñu leen di jàppale comme ñun ñun mm. suñu jëmmi bopp ñu ngi ñuy jàppale ñu nit ñi ngi jàppale suñuy moroom kon baax na maa ngi gis sa bi bi am ko bëggoon a wax soxna si mu soxna si jëlal micro bi loo wax ci lu ndey tuuti loo wax ma am mbégte boo xamante ne euh, euh, la jóge euh, doon jigéen boo xamante ne jigéen bu mun góor la te a xëy liggéey wàcc faana bi daray góor macha allah mu doon jigéen ñi nga xamante ne transparence jigéen ji nga xamante ne day dox ndànk wax ndànk dal bëgg jeune dame républicaine téye jeune dame républicaine faale jàpp jeune dame républicaine jàpp ñu ñun ñëpp uuf ñu tettee ñu di ñu lu ñu digal ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko parce que moom moo ñu moom moo ñu ko dikk jeune dame républicaine nag comme la waxee nag ñu ngi si 45 département du Sénégal bitim réew sax ñu ngi fa Gambie si si si si bitim réew la bokk. ba léegi ñu faam ay gendarme républicain en tout cas daal gendarme républicain daal c' est une famille. famille la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay te mu doon koo xamante ne ku transparence lañ daw doxal te ku mu toogal tamit dangay foog yow la fi nga bëgg a kañ bi mu doon nag bu baax macha allah te encore ñun tamit day am ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax parce que lii ça nous va ça nous va droit au cœur macha allah euh, mouvement bi bu mu juddoo yàggul mun nañu wax su dee léegi bébé la bébé la ñu commencé di bugg a dox. Hmm. mais macha allah boobu tettee mu mu indi fii li nga xamante ne bi ñu defee suñu lancement bi ñaari yëf la waxoon loolu moo fi am mooy nga xamante ne dañooy def ay cellules comme APR mu doon defee. nga xamante ne dañu doon monté ay cellules. ñun tamit macha allah moom suñu président bu imposé ni loolu ñuy kii suñu suñu suñu cellule mu tegal ni encore muy année sociale.

waaye nday tuutiloo ngay une bot say mhm. ku mhm. jafé, qui a mhm. ci mouvement jeune républicain waaw xam nga man avant jeune dame ce hmm. a ba foyer hmm. foyer scolaire Je suis présidente foyer J'ai fait trois ans école yaakaar naa nga gis sa façon bu ne ma jóge ci loolu boobu amaguma vingt ans ma jóge ci loolu jiite fédération nag des daayira murit bu vingt six daayira ci Parcelles Assainies yàlla def ma nekkoon présidente bi ñi ma doon toogal ñoom ñëpp ñoo magoon mais maa nekkoon seen présidente mhm. ndax yàlla moo dogal bañ koy initier benn jigéen moo ko fekki woon mu nekkoon man ca laa nekkoon présidente ba ay jëwriñ yu góor rekk la woon ak man ma jiite ko def ko yor ko sept ans bi may sëyi laa joxe léegi. Serigne Saare woo ko tudd jox ñu ko bam ñu koy tuddal ñeenti nit ñoo toog ñetti góor ak benn man muy jigéen. kon bu fekkente ni jiite avant jeune dame fekk na may jiite. bu loolu weesoo dama fi créé woon groupe Pinton. defe naa benn ngi ne toog. kela boog Pinton bu parcelle. Hmm. booba dañ doon campagne 2012. waaw élection yi bu ñu daan dem. bu ñu wëraan wër a wër ba sonn. ñu dugg benn boutique comme ay xale lañu woon ñun ñëpp di ay élèves kenn amu ci woon dara ñu dugg boutique benn jour ne dañuy jël le pemmican parce que dañoo dugg ne borom boutique bi lan nga am danoo xiif parce que 2STV bi lañ war a dem amoon émission ñu ne dañoo xiif dañu doon accompagner suñu benn autorité Abdou Mbow lañ doon accompagner jour boobu. ñu xiif ñu ne ko lan nga am mu ne ànd ne pain rek laa am ñu ne ko ñun ñëpp jaañu ku ne liibar mu roog thon biñ demee dugg ci studio bi ñu ne studio bi dafa xeeñ thon.

kon tey avant jeune dame mën naa ne man jiite naa quatre fois waaw jeune dame doog a ñëw te nag. mooy li ma la doon wax léegi xale bu loxoom. waaw ba tey xëy na yàlla moo ñu bindee noonu. dëgg la macha jeune dame ñëw nag ñu jiite ko mu nekk mbooloom jigéen. mu metti lool nag. Mhm. waaye neex lool it. Mhm. ndax ñii ñii ku leen xool xam ne lii yombut. dëgg la kenn ku ne fa nga jóge ak fa moroom morom jógee duñu benn. kenn ku ne taxi la fi andi. te moo la fiy jëlee si kàttanu suñu borom. te fu ñu leen wooti jeune dame ba Jurbel la ñuy jóg dem. fu ñu mënti doon dañuy jóg dem fii autorité yu bari sax dañuy xewle woolee ma waa jeune pourquoi woo ñu waa jeune ñu dañuy taaral bés xoolal ñi saluñu ay daggit. soluñu ay daggit di dañoo sañse ku ci nga sol Facebook gis nga leen ñoom ñëpp a ngi sañse toog kon ma ne la lu mu metti metti neex neex ëpp lu mu metti àndub jigéen mënta bañ a metti ndax sa biir kër rek day metti waxuma laak ñoo xamante ne nii yàlla dafa dogal xaaj bi dañoo frustré woon bàyyi woon parti bi mm-hmm. ñu ci ëpp foofu cinquante pour cent yi dañoo bàyyi woon APR dañoo bàyyi woon carrément toog seen i kër mais xale bi ngay jàngal sa biir classe bu xëyee toog ñetti fan ñeent yow miy jàngale da nga war yëkkat sa téléphone woote xam li ko téye mm-hmm. wa ilaa nga yebal nit wa ilaa nga taal sa oto wala nga sol sa daal dem xool lu ko téye mais ñooñu ba ñu bàyyee APR amuñu chance boobu kenn jël siwu leen kenn woo woo siwu leen. tax loolu. ah peut-être loolu lañ tombé rek jeune dame nag ba mu juddoo. ñun ñi nga xamante ñoo xamoon ñooñu di suñuy moroom. waaw ñoo sol suñu daal seeti leen kaay leen ñu ne yéen ñoo yem ci parti bi yàgg nañoo peut ama am ak ñu ndomba tàng ñun ñu amagul ndomba tàng ñoom ñoom la ñu dajaloo ànd liggéey jàppale rek ngir benn objectif muy nan lañ defaat ba président de la république am deuxième mandat. Hmm. laneen ñoruñu nekkuñu derrière ministre bi hmm. nekkuñu devant député ba leen ñun daal président de la république première dame point amul sa virgule point waa Ndeye Touré point nag lu waay di def da ciy hmm. gis boppam tey macha allah sa bleu turquoise noir bii hmm. da ko santir gis sa bopp moo tax nga sol léegi ginnaaw bi nga yoree mouvement jeune dame républicaine loo ci amagum yow en personne waa jeune dame républicaine nag dama cee sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax torop ak Serigne Saliou hmm. ndax li tax ma sant ci yàlla moo di bàyyi na ci ñoo xamante ne nii ay apéris lañu woon ne ci parti bi man ak ñoom musuñu woon xamee jeune dame a tax ma xam leen ñi ngi fi toog ñoo xamante ne ma leen woon xam mais su ma leen xamee c'est grace à jeune dame mouvement bi ñu créer moo tax ñu ñu xamante kon ñooñu ñoo gën a foor téeméer yoon lii ma solo ak lii ma takk parce que musuma leen woon a xam ñu nekk ay femmes yu dynamique yu engagé yoo xamante ne nii xamuñu lu dul teraanga xamuñu lu nan la ñuy jàppalee président xamuñu lu dul nan la ñuy royee si Marème fay Sall. waaye tamit. Mhm. teraanga àdduna. Mhm. bët bët. Mhm. en tant que président jeune dame mm. républicaine. Mm. war na dawal oto ah, kan moo la wax yi tamit oto bi nekkul ci yoon bi di ñëw nag. Ah leeram uh-huh. oto bi incha allah. est-ce que nekkul dañ leen ci kàttanu suñu borom. ci parrainage bi permis ba moom ma nga tege ndax ñun moom am nañ permis avant ñuy falu. xam nga xaaruñu ba fal mi falu doo ko xam nu ñu dawalee. est-ce que tamit xaaruñu leen pour. <laughs> waxuma dëgg. ngeen booloo. mu ay saa bi ñu ngi bëgg a rey nit ñi parrainage moom moo xew. bu baax sax pare ba pare. yow tamit nag. parrainage rek. déedéet kay non. kon distribué nga yi ba pare. si non joxe gun sax waaye parrainé nañu. waa léegi oto boobu. est-ce que nekku dañuy xaar deux mille dix-neuf ñëw seen yaakaar ngeen falu. si oto bi soog waa fi mu nekk nii ñun xam nga lan lañ gën a soxla. Mm. li nga njëkk wax muy parrainage bi. parrainage gis nga parenage boobu. Mm. ñun suñu yëf la ñun waa Jeune Dame. Mm-hmm. parce que li tax ma ne suñu yëf la moo yi parrainage bi bu la fekkoon yow nga tëdd di nelaw ba ñu andil la fiche di nga am problème ku lay signé ñu ne dañoo fekkoon ci terrain bi ñun daf ñu fekkoon ñuy massifier ñun suñu discours chaque jour moo di jeune dame dañ ko créé pour massifier pour mobiliser pour fidéliser APR kon yaakaar naa ne parrainage bi ñun suñu affaire la ñun waa jeune dame te nag dañ cee wane suñu bopp bu baax ne dañoo nekk ci commune avant ñu nekk ci jeune dame joxe suñu wàll nag ca commune ba mm-hmm. ëlbatiku da di parrainer ci jeune dame kon ñi ngi ci bu baax a baax a baax a baax ñi ngi collecté bu baax ndax gars yi nag dañoo namm lu mel ni élection mhm. parce que nag ñoo jëloon président Macky Sall fal ko wóolu ko gis ci moom li mu fi mu jëmee réew mi ak fa mu ko jëlee gis différence bi pare nag waaj jekk nag daa seeni carte di pare pour falaat ko mhm. sénégalais yi ci boppam waxuma la ñun politiciens yi waaye sénégalais yi population bi nga xamante ni mhm. xam nañ président Macky Sall boroom ki nga xamante ni ma nga jëlee gaz

ngay faj say doom gratuitement bàyyi ma daaneel foofu de dama koy daaneel ngay faj say doom gratuitement waaw jël location bi xaajal la ko ci digg ba léegi moitié ba la ñuy fay waaj bam bam ne dama koy wàññi dañ ne mënu ko parce que moomul terrain yi moomul suuf yi moomul moomul ciment yi wàññi la location yokkal la sa salaire defal la nag santé lépp gratuite wàññi la gaz wàññi la denrée de première nécessité li ngay jënd lépp mu yomb diwlin ceeb gaz waa lépp. Mhm. vraiment Macky saal bu amul deuxième mandat ñun fan la ñu jëm ñun sa askanu Sénégal. day tuuti xëy na yéen koom-koom bi yombaay bi yéen a ko gis. Mhm. essence bi yokku na. Mhm. gasoil bi waxi noppi. xëy na yéen doo leen ko yëg. parce que yéen a nguur. ah da foog ni ñun duñ jënd. defal ndànk rek taxawal. <laughs> ceeb bi it. Hmm. cher na. dëwlin waxaale wuñ ko. Hmm. yow nag xam nga ne yow nag. yow nag doo ndugg leen ma nag déglu leen ma ndugg bi yow jëndoo de. waxaale ma ko yow jëndoo. yokk kañ la gëj a dégg ci réew mi yokk ki la soble téeméer te dana foo dégg yokku dara wàññeeku fi nag. xëy na seen côté la wàññeekoo. Mm-hmm. koom-koom bi metti na lool sax. Mm-hmm. Mm-hmm. xëy na yéen ñi nag bokk bokk ci APR. yéen yëgoo leen mitit bi. non bu ne yéen ñi bokk ci APR. bii bukki ba delluwaat bii bukki bii njuur. bu sàmm la la loolu ñooy séddale nga koy wax si bokkul ñun ñu ngi koy yëg. gis nga bii bukki bii njuur bii sàmba boobu amoon na fi de président Macky Sall ko fi jëlee. Ah, déedéet mi kaay ma wax la. gis nga bañ ko fi jëlee. gis nga ñu génne di kaas ay oto. gis nga ñu génn naan dañoo nangu suñuy bien gis nga fi ñu génn naan dañoo nangu suñuy passeport loolu mooy séddale bii bukki bii njuur bii sàmba président Macky Sall ba mu ñëwee li ko raw tamit koy jooy dama ne président Macky Sall ba mu ñëwee la yamale ñëpp ku nangoo liggéey hmm. yaa ngi liggéey jël sa sare di ci lekk ba suur di ci naan ba màndi di ci defar sa ba pare fayoo ci mag feebar fayoo ci coupe ordonnance xale yi de zéro à cinq ans couverture maladie universelle bi macha allah césarienne boobu dama ne la xoolal garab yi nga da nga koy demaat jëndi dama ne la nit ñi ñooy wax rek xale boobu de zéro à cinq ans laa lay wax di couverture maladie universelle. du ñu fay ci programme président de la république santé. xale yooyu laa ne du ñu fay dërëm. xale bi carnet ngay jël. dem yóbbu ko mu faju mhm. yaa ngi dégg benn mhm. yow mii ndey xale bi war def accouchement césarienne xam nga président Macky Sall moo tax mu andi césarienne. Mhm. est ce xam ngeen ko. président neen damaa toog benn bés xool gis xale bu góor bi nga xamante ne nii. day dajale rek. ndax new doole mhm. borom soxnam tollu diggante nee ngay kot kot tadi di dajal di dajal dajal yaakaar ne boo waree dem ba wara am doom di nga li dana la doy mhm. nee nga xey ben bés mu matu nga yël sa ben ñent jooni yobbu hôpital nee dem ñu dugal ngay va et vient ci couloir di xaar di va et vient ba yàgg nga gis ben sage-femme bu génn ne la ne la sëñ bi jégé sin mhm. nga jégé sin ko la la ne la ah soxna ci de mat bi dafa yàgg soxna ci est-ce que mom duñ ko far dugal bloc opéré ko ba yor nga 300000 mbaa yor nga 600000 loolu nga daan dégg président ne kooku ne xaaral ma dem te ñëw dem di lijjanti ku yoroon 20000 francs di andi sa doom sa jabar bu mu matu ngay dem di lijjanti lijjanti di collecté di lijjanti di leb di leb ba yegg si ñu ne la suñu borom moom na ko kat ndax mat bi daa yàgg. looloo fi andi césarienne gratuite parce que nit ki tam boo koy dimbali. da nga koy dimbali fa mu néewee doole. ndax ñëpp amuñu doole dem clinique fay 800000 césarienne. ñëpp mun ñu ko defe naa président Macky Sall. Mhm. la mu def ci santé kase kase kase kase kase falaat ma ko. bu loolu weesoo bu loolu weesoo président Macky Sall. gis nañ ci suñu bopp yow gis nga ci sa bopp. parce que bi muy toog di remplacer Ablaye Wade président Ablaye Wade dafa dem ak suñuy kees tegal ñu fa ay bor boole suñu fii ak 4 mois nag benn salarié du fa yeeku. fii ak 4 mois benn salarié du fa yeeku Macky nag grâce. ah Macky Sall dëpp ba mu toogee ba léegi amu fi benn salarié bu toog weer bañ la fayut yow de yaa ngi fayeeku man maa ngi fayeeku yaa ngi fayeeku maa ngi fayeeku yéen ñu waxante dëgg ñee ngay fayeeku ñee ngay fayeeku maa ngi fayeeku man Macky Sall fekk na ma may liggéey man mag président Macky Sall fekk na ma may liggéey non jamais de la vie waa loolu dafay am parce que nguur gi fi jógee nag loolu lañ doon def double salaire am ndey tutloo tey ji bu doon jamonoy PDS maa nga am salaire commune am am bu département am am bu national maanaam jàpp alalu réew bi moom di koy yàq yàqatee di ko gaspiller moom la fi Macky Sall jëlee looloo fi amatu da ngay liggéey di fayeeku ñu yokkale sa salaire liggéeyoo cas sociaux yaa ngi fi ñu ngi leen di jël en charge prise en charge yaa ngi ñu ngi leen di jël di leen dimbale première dame it di jàppale ñi nga xamante ñooy néew ji doole ji ay jirim yeeg baa xanaa loolu kay mooy defar réew. dégg <laughs> waa léegi ndey tuuti. yow moom ku la xool xam ne politicien bu mag nga lii nga fi wax waxu politicien kese kese ah, man politicien laa di fi wax moom nga mouvement jeune république des jeunes dames républicaines ñun ay politicien la waa APR avec président Macky Sall ah. derrière président de la république rek kon léegi fas yéene ngeen takk seeni sër bu mu dëgg jaayante ak opposition bi 2019 yàgg na ñoo ko faloon di Wolof Njaay nee na ndaje bu neexee Ah. dafay tas. Mhm. bu naqaree dafay tas dafay waaw. yàgg yàgg. waaw dafay jóge. waaw may laaj ba xam am ngeen relation ak opposant dama ne fii yàlla rek moo fi dul mës a jóge kooku ba ñuy wax asmaa ullahil xusna hmm. albaax yi mooy ki fii des. Hmm. tur boobu moom rek moo ko am. xam nga kon kooku rek moo fi des ñëpp a fiy jóge ndax fii nag nguur nag ku aaye wal sa moome maanaam sa mandat bu jeexee da ngay jàll sa morom ñun PDS sañ nekkoon. Hmm. PDS e lañ nekkoon non transhumé wuñ de ñoo ñu dàq de ba ñu de wàccee président deux 2007 ñu génn di bébé boo xam ne daa juddu rek daal ni ni macha allah taxaw raamu ñu génn vingt 26 pour cent ki la gars yi ñëpp na yébbaloo ne Macky fi ne ah créé Benno Bokk Yaakaar foofu lañu créer Benno Bokk Yaakaar kon ba ñu def suñu congrès d'investiture APR kase la woon deuxième tour di vingt cinq mars boobu ci la Benno Bokk Yaakaar daane lay Ablaye Wade kon ñun APR ñoo njëkk a ñam opposition la dañ ñoo dàqoon jël suñu bien yépp téye téye suñu salaire téye suñu lépp téye ñu am suñu bo gëm suñu bopp nag gëm ni nag suñu kii ñu àndal yàgg-yàgg dina mës a dégg son excellence looloo waral ma ne la ñun bu dee opposition miin nañ ko ñam nañ président Macky Sall day faluwaat ci kàttanu suñu borom am deuxième mandat ba pare joxaat ko kaneen mu ñëwaat kaneen ay taxawaat postuler gañewaat réew mi pareeguñ ci parce que li fi baax yépp na li fi baax yëpp ñu non bañ egg ca. Ah. fi ne nii li ne suñu kanam te ñu wan ci wax. mooy ah. élection yi. kase ci kàttanu suñu borom. mais nag opposition ñam nañ ko bu baax miin nañ ko. baax na ñeme nañ ko aussi mouvement jeune. dame jeune dame républicaine. Mhm. yan organisation la mos a organisé. Mhm. wala nga gis fa des fois mouvement yoo xamante ni dañuy woote tey dem si benn bërëb. Mhm. war na fa seen bopp. boo seeni nit ñi ñëw fekk si leen. Mhm. mouvement jeune dame républicain. mus mhm. naa am organisation bu mel noonu. xam nga jeune dame. Mhm. bi ñu amee initiative bi nag ba commencé di dox seeti nit ñi suñuy morom ñii ñoo nekkoon équipe. di seeti nit ñi di leen informer initiative bi kenn ku nekk nga toog sa commune wote réunion yëgal nit ñi lan mooy initiative bi lan moo ko tax yàlla nag moo dogal nag boo ko waxee dix personne mbir yi dañuy adhéré ndax Marème Faye Sall. dañuy adhéré na président de la république parce que xam nañ ni mouvement la buy massifier parti bi léegi nag biñ ñëwee ba jour lancement ba xam nga si CICES grande salle unité africaine mm-hmm. fa lañ defoon suñu lancement jeune dame feesal ko ba dell ba ñu bari dugguñu mm-hmm. jour boobu ñu annoncé fa suñu programme annuel mm-hmm. ñu ne année bii kat woote woon ngeen CICES fa lañ la woon le 20 janvier fa lañ defee lancement officiel mouvement bi ñu ne at ne année bii kat ñaar yi lañuy def muy suñu programme annuel parce que ay nit bu ñuy dox mhm. tam dañuy am programme mhm. ñu ne programme annuel bi mooy installation cellule mhm. dinaa ñëw ci cellule yooyu démb lañ mujjee installé cellule ñu ne deuxième bi mooy action sociale ndax ku wax Marème Faye wax sociale ñaar yooyu ñu fa décrété won. ne mooy suñu programme annuel janvier ak léegi démb moo nekkoon suñu onzième cellule monté nañu onze cellules waaw cellule, yi ni ñu koy monté Mhm. passer Assainies mhm. la njëkk a ñëw monté di sama commune. fa la njëkk monter c'est les 300 membres jeunes dames ci benn commune ñu pare dem Pikine Est. Mhm. def fa am fa 500 membres jeunes dames sampal leen présidente muy Nabou Bey. Le commune bu nekk dafa am ku koy commune bu nekk day ku am cellule rek mais xam nga il faut nga am cellule. comme carnet comité yi rek. comité bi 100 personnes yaa leen dirigé. ñun nag cellule yàlla moo def dem nañ ba ëpp loolu parce tam organisation mënta ñàkk booy wax noo wax ak ñëpp. la mais ñi nga xamante ne ñoo am ñoo am cellule. Mm-hmm. maanaam ñooñu ñoo gën a officiel. nga xam ne yow tey boo mënta wax ak cinq cent membres yooyu mën nga caa wax ak président cellule ba mu wàccee ci membres yooyu. Mm-hmm. ñu dem jaama gën si Kambaaw seen présidente gi ne xaritamba cinq cent JDR ci commune jaam jaama gën si Kambaaw. Mm-hmm. ñu dem Pikine Nord dem dem dem dem dem dem Caaroy euh, Gaar monte fa 200 dem Bambilor nag daj dëpp gi monte fa 2500 membres ah dem ñàgg def fa 500 dem Mbuur def fa 300 dem Dalifort def fa 200 démb lañ mujjee monte cellule démb Rufisque noor lañ demoon ña nga nee toog ñu monte leen 200 mm-hmm. kon yaakaar naa ne mouvement bi ba mu juddoo ba léegi tooguñ di nelaw parce que nit ñi dañ daan créer mouvement mhm. pour am tour tëdd di ngelaw ñun na bañ ko créer ba léegi ne danoo toogul xëyatuñu yendatuñu dara lu dul ci jeune dame monté nañ fi on cellules def fi huit calabas calabas benn bu nekk rek dix paan lañ fay joxe léegi yow cellules yooyu nga wax ne da nga koy monté mhm. sa mbooloo nga àndal macha allah am na mhm. ci koo xamante ne mi ngi fi kan la ci ñi nekk président de cellule waaw benn ngi nii bay nañ fi ñaara nga ne keneen nag président de yaa ngi fi Boolo Thiam a ngi président cellule Pikine Nord borom Pikine Nord. waaw man nag maa ngi tudd Boolo Thiam nekk présidente gendarme Pikine Nord monté naa sama cellule de 200 gendarme laa monté sama commune euh, lu waral nag ma sama gendarme commune parce que dafa ay femmes yi nga xamante tey mosuñoo politique nekk Pikine Nord toog defuñu dara.

visite ñu doon dem suñu mouvement bi ñuy lancé mouvement bi ñuy dem ci autorité bi ñuy recevoir bu ñu mosoon jox xaalis léegi bi xaalis mos a dugg ci saako ak ku ne dañ naan politicien dañuy dem dugg ci xaalis waaye ma bokk ci. loolu tax man ma bàyyi li ma doon def yëpp ànd ak moom di liggéey moom ndax kat duma gis moom mu doy ma mu jaral te ma ànd ak moom di liggéey ak moom ñuy ànd ànd bu rafet ànd nawle ànd ngor ànd teraanga lañu ñuy lépp loolu kese tax ñu doon def loolu asalaam. waaw jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. waa Ndeye tuuti nag ginnaaw bu ñu génnee nag ci mouvement bi madam comment. madame Dieng. madame Dieng. Mhm. macha allah sa santu jëkkër bi nakari na. Mm. waaw faale léegi nii buur. léegi madame Dieng. Mm. ku nekk xam na li ci mhm. kër. Mhm. en tant que femme foyer. naka nga naka ngay téye njaboot ji ak sa mouvement bi. waaw metti na nag trop mais tamit yàlla moo def avant ñuy marié fekk nañu ñuy politique. Hmm. waaw suñuy boroom kër xam ñu ci ay organisation fekk ñu aussi ci politique bi yàlla def ñu am chance mu nekk koo xamante ni tamit ku ma bàyyi la ci politique bi. Hmm. ndax mënoon naa dugg ba ci biir mu wan ma bëtu politique bi neexu ma walla mu waxee ma ko. yàlla nag moo dogal ma am chance bu rëy ci coté boobu ba nga xamante ne nii su may dem réunion sax day xam ban commune laa jëm su may dem day xam fan laa jëm moom politique gudde mais fi mu toog su ma jógee dem xam na fu ma jëm parce que lépp dañ koy waxtaanee ndax couple moom noonu la ñuy dundee mhm. dañuy amul leen lu ñu nëbbee ci politique bi fépp fu may dem xam na ni dañ am naa ndey ma nga dem réunion fii wala fële fitnaalu ma daal waaw daf ma fitnaalut lu ma xam nga nak mbay jaay moma ma may ko moy sama jaay bañ may tak dama yàggal lima ma wax sank nek ci ginnam nek bébé ci parti bi mu yar ma ci parti bi ba ma dem le jour biñ may maye sama yaay ne sama caat mi mom la dess ta mbay jaay wonna am ciir ci kër gi ñu jël ma daal di ma koy nijaayale xam nga mhm. kon yaakar na ni politique bi mom dem na ba nek suñu deret sama magu papa député la bokk sama papa ndey ak baye kon man dama politique ndoona la si ñun bokk. mu may takk xam ne kii may takk politicien la ma am chance ndax lool tamit chance rek la. parce que bay na ñoo xamante ni seen sëy. Mhm. dafa dafa dafa dafa xaw yàq seen politique. mais man yàqaluma ci lu bari mi ngi ma si jàppale daal. mën na laa buux ba ca biir dem ba ci digg bi. Mhm. ne la na dakk parce que boole ak sëy. merci beaucoup moom wax dëgg fa dafa ma ci encouragé. famille am di ma ci encouragé ñoom ñëpp macha allah. léegi madame Dieng est-ce que am na jot dugg ci biir waaj toppatoo mu sañee ah bu baax a baax bu baax nag dañuy hmm. def ba mu baax nag ay jeeg lañ nag jeeg ci biir kër ay jeeg xam nga ay daam lañu ñun suñu marraine day dugg ci waañ toppatoo suñu président mu añ ba suur <laughs> xamala ak ñun <laughs> yow rek ah ñun jeune dame rek dañuy def ba mu baax léegi ñu ñëw ci xew-xew bi xew ci réew xale yi mhm. yarinu xale yi col ko xale yi waxinu xale yi mm-hmm. te di nga wax ak xale bu gestu ne la xanaa neex mu ne la yaay bañ mm-hmm. yow en tant que jigéen en mm-hmm. tant yaay loo xam ci loolu waaw en tant que éducatrice tamit ah. xam nga xale yi xale day copier ñun ñi di jàngale ñun xam ñi xale waroo xaar ba mën a wax ngay wax ak moom xale dangay wax moom ci ay image di wax ak moom ci ay gestes ci ay façon même bu munul wax parce que même suñu diine def nañu xalé bu ndaw bi même bu xamatu xamagul sax faratey julli ney seug di siggi ney seug ney def ay action di seug di siggi ba kérok muy xam farateye xale li mu gis rek loolu lay répété yow mi jur sa dom nek ak mom ci kër gi naan ko damay fël-fëlaale naan ko demee def lii ak loolu xale bi noonu lay waxee rek ah parce que da koy gis yow di ko répété ci kaw yaakaar dafa baax. Mhm. teg si yaayam la ko jëlee. teg it mi ngi koy yàq beneen affaire tamit ci école ba. Mhm. parce que bu ñu xëyee ñu àndil ñu élèves yi. Mhm. ñu yendoog ñoom waxanteeg ñoom defanteeg ñoom. ba ñu pratiqué war a wàcc 13h. bu ñu demee ngoon nga lañ jëlee woon ci école ba lépp bay këpp ci suuf. bu ñu xëy si waat nga nekkaat ci répétition encore. xale boobu mooy màgg am jikko yooyu ba léegi. lu ci bari bari ki nga xamante ne moo na ci kër gi yor ay doom ñoom ñoo gën a mën a éduquer seeni doom ke école ba mu metti loolu mais xale yi seen mooy yi ñuy waxante mhm. seen biir kër yi lañ ko jëlee parce que am na émission yoo xam waroo bàyyi sa doom di ko seetaan télévision am na télé yoo xam waroo bàyyi sa doom di ko seetaan xale yi léegi ku juddu am téléphone am na élève yoo xam waruñu am téléphone mhm. am na âge booy toll waroo yor ay téléphone di xam ay internet ay réseaux sociaux du yoon ndax léegi lépp ngi ci nee na nit balaa ngay yóbbu sa doom ñu la koy yar yaa koy njëkk a yar ma si foofu nga duggoon te di nga toog ci télé toog ak sa Dieng di seetaan mhm. fii yi léegi gis na nu muy demee sa doom toog sa wet mhm. au début boo musaan seetaan télé ba gis yenn image yi da ngay mhm. léegi xale yee la ko dàkk seetaan est-ce que loolu tamit du faute si parents yi loolu parents yi la rek parce que tamit yow xam nga nit da ngay responsable ci domaine bu mu mënti doon nag nit ci boppam da ngay responsable da ngay sëy da nga war a xam responsabiliser sa bopp xam ne yow jeek nga buy sëy si biir kër gi jur ay doom nekk sa nawle muy sa boroom kër si biir kër gi gis nga nit war na rus doom génn nettalil yaayam dara kon kenn ku nekk la war nga xam sa doom waru ko waroo sax séq ak moom yenn yi tàmm la rek mm-hmm. yow mi ne ci kër gi daal li nga tàmm sa doom mooy génn Olof Njaay nee wenn du fen bu fekkente ni yow sa lépp da koy partagé teg sa doom wax dëgg fa yàlla waxuma la xale ba la muy wax sax mais bopp ba la cay nekk dara du baax yow yaa war a njëkk yar sa doom ci biir kër gi ñu doog ko mën a yar ci di di nuyu nag équipe bi yëpp di wax ni franchement parler am nañ contentement bu rëy parce que tamit lii ngeen ñu defal yombul woo ñu defal ñu émission mu nekk loo xamante ne bii sax ñoo waroon jóg si ko ndax bëgg nañ ko aussi li ñuy def di politique dañ koy soxla yaa gaa ñi ngi si borom mais kontaan nañ tey bis ndax ni moo tax may la kontaan nañ trop au fond du cœur daal kontaan nañ di wax ne buñ fi toogaat aussi yàlla na fekk jël suñu réew mi suñu nag loolu moom fi suñu programme ndax yàlla daf ñu boole kilifa gu mag kilifa muy président de la république ñu wóolu woon ko am nekkee ba léegi te boobu ba léegi dara soppiwu ñu te lañ ko gën a wóor gën a gëm te nekk ay ambassadeur te fas yéene koo gën a nekkaat faral ko si kàttan suñu borom di leen remercier aussi di ñaanal suñu première dame day jaboot yàlla yàggal ko fi moom gis nañ ni mu jëlee réew mi mu ko yoree ak fa mu ko jëlee fa mu ko jëlee di ñaanal nag toutes ñoom ñi nga xamante ñoo waral lii ñoo tax day dugg tey di def émission ndax euh, benn loxo du yëngatu ñaar ba ñett ba ñeent ba juróom du yëngatu ñu jiital ma nag dafa xastaluñ ma su ma jógee ñu jóg su dama jóg dem ñu dem fu ne nag. heure bu nekk li ma waxoon sànq kon tey dërëm yëpp ñoom laa koy joxaat les jeunes dames républicaines rawatina ñi toog tey dagg seen yitte yëpp ndax ku ne xam na ni jour ouvrable la ñu bëri ñu ngi liggéey waa Rufisque dégg naa day taw taw bu métti moo tax ñu mujjee toog kon ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant di wax ni kontaan nañ trop remercier yi ñu ngi lay delloo ñu ko bu baax a baax a baax teewaay bi nga teew bi. macha allah nee na ne nit mën na chaise mën koo luye waaye ay nit mën nañu koo luye xool sa public bi xam ne déggal na la bu baax a baax ñu lay jox di fekk xam naa beneen yoon moom naa la woowal incha allah rabi ta solo lool waaw yéen téléspectateurs ak téléspectatrices yi mooy seen émission Jukkal Jigéen comme ni ma leen ko waxee woon rek femme bi kookoon xam ne femme bu bravo ma leen di jox di daje beneen émission ak beneen jigéen macha allah fii seen télévision. Diène TV may sant na suñu caméraman bi fekk suñu bu neexee nday yaatee sama man kese su ma toogee fii dara du sotti ñuy waa Rési ñuy directrice directeur suñu caméraman yi ñoom Moussa Youssou Thiam Mouhamed yéen ñëpp maa ngi leen di delloo njukkal comme ni ma delloo njukkal day dugg loolu yi di leen sant di leen gërëm di leen jox beneen émission.